mu des mu des waaw xam nga léegi mbind àddina yëpp dañ koy bind ci ordinateur dafa am audiovisuel waaw audiovisuel yoo xam ne moom lañ koy bindee léegi nag te ñun amuñu audiovisuel en en te mën nañ ko am en français audiovisuel yooyu ñuy bindee disque dur yooyu ñuy bindee di leen introsé ñuy def ay arab araf ya dañ leen koo sax dafa nekk ci seen biir nit latin bi def ba jël arafam def ko ci machine à taper noonu la arab bi defoon ba jël arafam def ko ci machine à taper yaa ngi dégg bi nga xamee ne dem nañu ba jamono ordinateur ñëw ni latin bi def ba jël arafam def ko ci ordinateur noonu la arab bi def ba jël arafam def ko ci ordinateur yow wolof bi amoo araf mais yow ki nga ki ki la jàngal diine am na nay araf te ñu ngi ci audiovisuel ñu ngi ci ordinateur bi lu la teree manipuler araf yooyu nga bëgg te soxla comme ni ko waa Iran di defee lu tax mënoo ko def kom ni ko waa Pakistan di defee te nekk na fi ba noppi nga ne danga ko fi bàyyi dem jëli yeneen araf yoo xam ne wàccul ci sa diine jàngewu ko anta kunta min ashaabil yamin wala ana du an takuna min ashaabil shimal في شموم وحميم وسل من يحموم لا بارد ولا كريم ma dégg li ma wax continuer leen rek loolu moom yoonu safara la ku gëm-gëmal ku weddi rek bay boo nga weddi waaye man Cheikh Gueye li yi liggéeyoon ci wolof liggéey ko ci arafi arab suñ ko fi bëggee bay dem feneen nee nañ ko fay jëli du sotti te dinaa la xamal ne làkku arab ni ci maam yi géejoo ak liñ ci tëgg jiimoo na continuer ci loolu uti ci ay audiovisuel yi bind te jiima sotti ma maanaam liñ bëgg a jàng ci ci ci diine ñu soppi ko ci te bëgg ko soppi ci arab ñu indi ko ci laxo luxal arabiya ci lettre bi su ko defee ki doon jàng français su bëggee jàng diine te ne du ma ko jàng ci loxol arabiya moom du duma ko def ndax waa ji jàng na arab waa ji lëy jàng na arab nee na nee na jàng alxuraan mais nee na bugul bugul jàngee diine ci alxuraan donte bàyyam ca daara ci la ko njëkk dugal bëggul xuraanan arabiyan xëy na si wañ xuraanan ji mu bëgg mooy xuraanan laatiniyan fii ay wañ loolu la bëgg xuraanan laatiniyan fii ay wañ moom la moom la lay di woote yonent bi di woote quraanan arabiyan xayri si iwaj waaw topp leen nag quraanan laatiniyan fii iwaj ngeen bàyyi quraanan arabiyan xayri si iwaj képp ku leen di dàkk di leen fil di dox seen diggante ak mboor mu yonent bi rëdd bu ko xamee seytaane la bu ko xamul seytaane la mais nag ginnaaw yéen kenn mënut a wax lu ngeen dégg bàyyi leen fi araf yi yonent bi daan binduloo ngeen bindee diine ji ci yeneen araf bàyyi leen fi arabi yan xayra si iwaj ngeen dem ci laatini yan fi iwaj su fekkente ni euh, tubaab bi bëgg na lépp lu ngeen dugg mu xam lépp lu ngeen génn mu xam daf leen di daf leen di gax ngeen di bindee araf yi muy binde maanaam du ngeen mën a borteeku ci tubaab bi bu mukk fekk borteeku leen ci lépp Iran dañoo botteeku complètement am nañ siin araf yi eh, perse yu ñuy tëggee ci mbindinu arab am nañ ci ay ordinateur ñoo nga ciy bind chinois yi nag jógee ci xàll ba ñoom bàyyi fa loolu yépp dégg def araf yoo xam ne ci àddina nga gis ko dong ak njommite la waxantuma nga mën koo jàng abajada ba mat na ñaari téeméeri araf ak lu topp ñu def ci audiovisuel bi ci bind su ngeen jëloon arafi olofal jox ko ab chinois ne ko dugalal mu ko ci ordinateur mu am audiovisuel buy bindee nii danañ ko def ñoom danañ ko def mais buñ ko mënul ñeneen mën nañ ko waaye ah ñun daal sotti na nañ lekk neex nañu lekk naqari lañu lekk waaye nañ taali toggal suñu bopp moom gars yi nanguwuñ ko bis bu nekk daal nit ñi bëgg a boot ci ginnaaw latin yi rek latin yi ci lañ ñuy boot te nag xalaat du jut mukk te jegul université loolu mooy li ma gën a jaaxal oustaz Assane fay génn na fi ay ay araf yi mu duppee ci biir arafi alxuraan ñu di ko bind mu leer nañ ba mu ci téere waaye oustaz Assane Faye génnewal université te bindul ci latin ci alxuraan la bind gaa yi sànni ko ci ba am na benn xele bu dëkk Saalum sos na ay araf tudde ko ñuulaange ñuulaange araf yi mu bind la def na ca wàññ def na ca lépp waaye dafa ñuul génne ñuulaange te yéen da ngeen a ñuul bëgg a jàng ci weexaange ginnaaw ci weexaange ngeen bëgg a jàng nag ngeen dem jàng ko ci latin waaye fi mag ñi eggoon day ci araf yi ñuy jàngi alxuraan nga xam ne ñun ci alxuraan lañ jóge man a jàng li mag ñi bind man ci alxuraan laa jóge daal di gis mbindam wala fal man ko jàng man kenn jàngaluma arafi olofal nii lañ koy waxe damaa jàng alxuraan ba fir ji ba dem ci ay rahman allama alxuraan ma dem école arabe falaa sama samam njàng ba samam njàng egg waaye damay jàng baati wolof na mu waree te kenn jàngaluma ko ci daara yow mi nga xam ne danga jàng fa tubaab ba mën a jël arafi tubaab bind ci tubaab noonu la Cheikh Gueye mi jàng arab mën a jëlee arafi arab bind ci wolof ngay bind arafi tubaab di ca bind wolof may bind arafi arab di ca bind wolof arafi tubaab am na audiovisuel mën nañ ko bind ci tàppo ci ci machine à araf yi arab am na ajo audiovisuel te mën nañ ko bind ci tàppe ni nga def ba mën a jubbanti arafu arab tubaab yi ba bind ci wolof noonu la Cheikh Gueye mën def ba jël arafi arab yi bind ci wolof ñëpp taxaw nag takku ne arafi arab yi alxuraan di waxee nañ ko baax na alxuraan taxu si ci nun mais dañ koy jaare ji ci latin ya door koo indi mu gën a yi gën a ñoqali loolu dala gaa yi di wax si Moustapha Diop nag li mu wax man ci laa ànd téeméeri yoon laa ci ànd li mu wax ne Alboury njaay ñaari Alboury am dafa am Alboury Seynabou ak Alboury Birame Pende Ndiémé Ndiaté ak Alboury njaay ak Samba Laobé Ndiaye ñooñu Ndiaye ni Jolof lañu dañu daan am seeni tampon di ca tamponné waaye dañ ci daan bind wolof waaye ci làkku arab lañ doon bindee buur ba Jolof dóor tàmpe buur ba jolof loolu lañu daan bind waaye nag buur ba jolof dañ koo bind ci làkk wolof waaye ñu làkk ko ci ci ñu la ñu bind ko ci arab fi arab te latin moom dafa ñëw spécialement pour génne fi arab ak lépp lu bokk ci moom te kuy génne arab Sénégal da nga génne wàlle alxuraan ndax def cee bokk ndax ngay dégg li ma wax mag ji ñoo dem ci luxal arabiya dem ci arud dem ci mantiq dem ci bayaan bay fent ci biir waxiinu arab loo xam ne amul woon xam nga boo demee ci arut dañuy jàng fuulun mafailun fuulun mafailun فاعل فعول مفاعل لك الفضل يا مختار يا سيد xam nga fa'ul mafa'il la gënoon arab yi tëgg nañ ci dëgg yu bari mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun bu tëgg nañ ko ci waaye nag tëgguñu ci seen wax failun mufaalatun failun mufaalatun tëgguñu boobu ñoom tëgguñu boobu mufaalatun failun mufaalatun tëgguñu boobu noonu dégg tëgguñu bi ñuy wax naan ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj sëriñ bi jara àndal bu leen njuuj njaaj maanaam daaj boobu amul ci arab daaj boobu amul ci arab ñoom Mame Moussa Ka ñoom ñoo ko fent te ni ko fente mooy ku jiital li ma jiital lu la neex laaj te jigéen a ko doon wax topp doomi ba indi jaam yuy di ko jaamu naan ku jiital li ma jiital lu la neex laaj mu dégg ko rek ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ku jiital lima jiital lu ma neex la léegi mu ne lii ab daaj la comme ni euh, arab yi amee ay daaj mu tëgg ci way dégg nga maam Moussa Ka dégg na ay gone ñiy bàkku di roy mbër yu mag yi ci làmb ji eh, aw bàkk daf fee amoon wu ñu daan wax mbër mu ndaw allaw le nga waay mbër mu ndaw allaw le nga waay mbër mu ndaw allaw le nga waay mbër mu ndaw xool ko ne ah, faailun mufaalatun faailun mufaalatun faailun mufaalatun faailun mufaalatun mu déggee ko noonu ci tëggiinu aruud yéen ñi bindee Grèce ak romain da egg foofu ci loxo ba ngeen nekk eggu leen ci loxo boobu lool eggu leen ci man di def ay créa di créer yees loo xam ne musta am ci làkku laatiniya ngeen génne ko te suñu maam yi jàng nañ arab ba créer lu yees génne ko ci làkku arab te amu ko woon arab mosu koo tëggee waxin woowu amutoon ci arab ñu fantal ko seen bopp ci seen dégg mbër mu ndaw allaw le nga waay mbër mu ndaw allaw le nga waay maam Moussa ne faailun mufaalatun man da xaama laa bëgg a way faailun mufaalatun man da xaama laa bëgg a way romb naa fa lamb jabis ñuy tëbal aka way seeni mbër yu ndaw ñanga naan mbër mu ndaw allawu le nga way man ma dal way sunu mbër seen waxiin wala bëgg roy ma dal way sunu mbër seen waxiin wala bëgg roy ahmadul yadda aliyu pas-pasam bala amee tey déglu leen ma bànki fi mbër mbër mu yàlla fal du ko doonu Bamba doy na dimbal kagelal ba weesu na ci xarwari si tamara tabatan yaa xalifata banu xusay wailun mufaalatun failun mufaala xol piggin woowu amul fenn ci buraadul arab da ngay wër ba diyee arul ba arul jeex demel seeti ko kenn du ko fa gis te maam Moussa Ka ci dégg loxol arabiyaam ak dégg naawuk sarfam ak dégg aruudam ak bayaanam ci la doon tëgge yu bees yoo xam ne boo ko yóbbu ba ca arab yi itam mënuñu ca dara te xoolal su fekkoonte ni daf cee munta daf cee munta way arab arab yi dañ koy wax ne yow sa baxru bii nga indi mënu si ca way arab waaye da cee way arab qad xawayta maarifatan yaa qadimu najlulu ay xam lu arab la qad xawayta maarifatan yaa qadimu najli lu ay loolu soo ko waxee naar daf koy xam te dina xam ne yaa ngi tëgg failun mufaalatun boo jógee Touba ba ba ngay dem Iran baxru boobu doo ko gis feneen mais mag ñi mën nañu liggéey lu toll nii liggéey ku ci làkku arab bind ko ci suñu wolof yi gone ku ndaw day nañ ko bàyyi dem seeti man de ànduma ci ñu jël alxuraan ji di ko bind ci arafu latiniya ànduma ci tey ànduma ci ëllëg léegi nag dañoo laxas làkk wolof ci biir njàng moomu ne bàyyi sax jóob anta ñee na kenn mus kenn mënta mos lu saf xorom mbaa mu saf kaani ci làmmiñu keneen lu teex lu tax Baye Cheikh Diop Anta bu daan julli du du wax alxuraan yi wolof daawu ko wax de est-ce que daana ko wax ko wax kon bu dee wax ne kenn musta mos lu neex mbaa mu forox ci làmmiñu jàmbur mi ci jublu xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xami xarala yi ñu bëgg a jàng te muy xam-xam yoo xam ne boo ko bëggee jàng ci làkku keneen dangay jàngi làkk wa te bala ngaa jàng làkk woo ba egg ci xam ko xam goo ca mën a jànge xam-xam yooyu sa dund di la ko may mu gàttalal la ko ne nañ delloo si xam-xami xarala yi jàngale ko ci wolof ñu daal di koy jëfe ci loxo yi daal di doxal réew mi ci saasi waaye bàyyi sax jub ante newul kenn mënuta mos lu neex ci làmmeñu jàmbur kon nañuy merdu ci wolof waxu ko waxul ne kenn mos lu <laughs> neex ci nañu jàngal xuraan yi wolof waxu ko bàyyi suuf bàyyi jub sax anta bu fekkoon te ni dafa façon yéene bàyyi langue arabe bàyyi loxal arabiya du jàng alxuraan ba wàcce ci kër Sëriñ Tuubaa te fa la doon jàngee ba wàcce fa alxuraan moom Baye Assane Fall ñoo fa nekkoon bu fekkoon te dafa bëggoon a bàyyi lu la arafi arab ne na lépp dem ci latin kon doon na ko def bi mu fi nekkee te defu ko woon bi mu fi nekkee kon ku ci bugg a def sa yëf ko def te bul ko latoo ba jub sax anta loolu moom damaa bëgg leer ñëpp na ko ñëpp xam